une association organisation de la justice civile nous nous manko pour interpeller au plus haut niveau le président de la république D'un côté, nous sommes au Sénégal sommes di top top magistrat pour bëgg ko sommes au Sénégal sommes pour top top association pour beaucoup ko bëgg Nous, nasaxal au Sénégal nous am ay réformes yo xam am une justice indépendante au Sénégal nous am des magistrats yo magistrats indépendants la nous,

ñu jóg taxawoo laxasaayu ñëw défendre ko ndax yoon may na ka ñu jël ay avocat pour mu défendre ñu ñu taxawu ko mais it yoon may na ay magistrat yi ñëw sol robe avocat ñëw taxawu ko kon ñoom ñëpp tey jii lu loolu bu amee war nañu taxaw mais ñaanit man sama wàllu bopp moo di fu avocat nekk ci Sénégal na ñëw taxaw te dinaa ko jéggi de fi avocat nekk ci Afrique man woo naa la bëss bobu nga ñëw xam indépendance magistrature fu ci bépp réew mo xamné que ci Afrique lolu yeneen réew yi ñoom dañ koy euh, day doon exemple pour que ñoom ñu mëna xex am sen indépendance légui nak na xel yi dellu si ministre bi lu mu li jël na fexe tëral ko ndax li manam mun na toj réew li mun na tas réew magistrat buñ ko néwalé doolé buñ ko néwalé doolé

wut ñu ñuy utiliser ci justice bi pour manam dal ci kaw di nga xamne dañ leen sonal dégg nga gis nañ ko fi procès politique yëpp loolu la ay magistrat lañuy fexé yo xamne xam ne que ñoom li bëgg dinañ ko jot magistrat yëpp nak duñu nangul nangu kon bok nañu xamne ne que tey jii service public justice bi c'est menacé nañu xamne ne que indépendance su magistrat yi c'est menacé légui nak li xel mom moo dañu teurel li ndax kat dégg ngeen li wax né nañu ko légui considéré tuñu que ministre bi seen naataango parce que ñom doolé liñu té charte yi mo leen def doolé comme charte yi ni ñu joxee gouvernement bi doolé kon ñaari doolé bu féké ne jóg nañu ay ponkalu poids lourd ñu bëgg a koku population bi bu nekkee ci digg bi gañ gañ yi dina war mëna metti kon na xamné que autorité justice autorité la dégg autorité bi nak kon buñu ñu ci autorité yi kon loolu war na mëna metti dégg nga léegi nag na xel yi dellu si.